fii bébé sama fi fekk laa fi fekk mu nekk fi réew mi neex mu jóge fi ngalandu fab ko maam fi yaari at ngalandu saay Lamin Kura nangu ko nekk fi ku ci ne du yéenem waaye du yàlla rëdd ceeb jënd am na juróom-ñaari at amuñu lu ñu lekk amuñu lu naan kenn amul loo woddoo ku dee dee su la suul guddi dañ suul bu ngeen te amee kenn du dana de kër gu ne koo amul saaku mooy dem yóbbu dana de kër gee bu nay ndaw rek dañuy dana waaye kenn du dana ke juróom-ñaari at loo koy tombe ci jamono jamono nag dine ak na mu dikkee a na mu dikke nga koy jàppe waaw léegi mu watatu Lamine Koura dem gis Senghor te France mu nuyoog moom mu ni ko fii daa dëkk senegal laa dëkk jidóor doomi jogo yi Senghor mu ni ko yow day comme que jàng nga ba toll fii dama bëggoon nga ñibbisi ñu dem Sénégal bu ko defee nga def parti ma def parti ndax jenn cin rek bu dee tàkk bis bu nee ma yekk may bëggoon na koo xam ne boo yëkkee bu taalee nga taal ñu seet ku ci gën a neex nga ñëw ni kon daa ko def andi ko kaaraan quatre quarante quatre bennaa da ko indi quarante cinq sëñ Modou Moustapha Mbacké nelaw mu dikk mu gañe quarante cinq quarante quatre quarante cinq quarante six quarante sept quarante neuf huit quarante neuf cinquante et Senghor moom réew mi waaw ah, cinquante et mujj moom réew mi réew mi neex sëñ Fodou Mbacké na daw quarante cinq lu demoon del ci lu demoon dir ci nag moo yor jamonoom di ko doxal waaw bi nga xamee ni yàlla def na réew mi neex nit ñi bëgg naaw naaw ndax neexe fi waaw ñu bëgg naaw ndax neexe bi def lu ne saa boroom mi xam ni doola doy na suñ fa du nelaw léegi àddina doxaat Senghor nekk ci réew mi muy neex moom it ba saa boroom daldi ko fi dàqe kii dikk ku topp ci Senghor ati Abdou Diouf mu ngoog Abdou Diouf di secrétaire di rabinam di premier ministre ba nangu réew mi kooku bi mu ñëwee la doon yéeneem bokk nag li yàlla di dogal daana dogal am na as lëndëm lëndëm am na as lëndëm lëndëm waaye nag lëndëm lëndëm ba lu ci ne yàllaa moomu réew mi moomu àddina yàllaa moom a jamanoom ku ne fa ngay toll la lay tollul moomit mu xalatee wow ba yàgg moomit ñu ni a ah, man de defuma dara sama njël doy na waaye da sama baaw mooy wàññi njël li muy premier ministre mu yëpp di Diouf mu ne sama baaw mooy mooy wàññi njël da kon mu baawaan ni ñi fi nekk waaw ah yàlla nag ci boppam moo yor jamonoom bu kenn wax ni kii moo tax mu mel nii déedéet damaa bëgg ñuy jiital saa borom di ko ci boole na mu def jamono dees na ko def dina ko def nu mu deful jamono dees na ko def waaw du yéeneem mu nekk ci ba yàlla def na e, moom it mu toog Abdoulaye Wade dikk doomi muur toola Wade fa Kébémer mu gane jamono 26 moom Abdoulaye Wade 26 baayam da doon ñaw machine ñawal na ma man mi mbubbi sooke nduggi fooke may dowal di rawanteeg moroon mi ngeen di dégg sooke dowali fas fa kebe meer waaw moom Abdoulaye Wade 26 ba maa jiitu 26 ba gane jamono waaw te boobu man xàmmiku naa ba bi man dawali fas ci Kébémer laa la wax du dem waaw ah àddina def bi nga xamee ne àddina doona na kooku yi dugg nekk fi ñu naj ko ñu ni du dugg ndax fonctionnaire yi ku tàng la bëgg ñu jàng mm-hmm. taalibe yi nga xam ne nag nga xam nun ci jamonoy sëñ Tuubaa la nekk ci sëñ Tuubaa ñooñu nag bëggoon nu neex ñu ni nag ñooñu dañu leen di naj du ñu am bunt naj bi lay wàtt du am bunt bi nga xamee ni yegg si nag it te muy taalibe ak xan móor soo la meññ ko ñawal sëñ Tuubaa ay mbubb ak ak sëñ Mudu Mustafaa Mbàkke taxawal ko ñu toog genn takkusaan mu waxal boppam Abdou Diouf ni Abdoulaye Wade gañe na ma ca takkusaan ku fi nekk ci àddina dégg na ko gañ na ma gañ na ma mu moom réew mi yaari at ñu nangu ko ñu ni kii taalibe nañu ko dàq waaw ah? waaw waaw ñun nañ ko dàq mhm. mu def kii premier ministre. Macky Sall Macky Sall. Mhm. ñu ni kee xam nga dama yàlla baal xam nga bëgguñu dara ci ku juddit bëgguñu dara ci dañu gën a bañ murit nag dañ ci gën a bañ murit nag lañu gën a bañ. ah. ci Macky Sall mhm. Mhm. mu daal di ne léegi. ah bi nga xamee ni wati nañ nag Ablaye Wade gañ ko tëkkusaan ca kaw mm-hmm. ab Diouf wax ci boppam ni gañe nama ma bi ñu defee premier tour deuxième tour mu ne Ablaye Wade gañ na ma Ablaye Wade gañ na ma ñu bëgg koo coup d'état keroog keroog bu dul doon Ablaye Wade des koy coup d'état da mm-hmm. fekk ñaara ngi ci pare woon nañu kuréel ka ba mu jàpp. Hmm? waaw bu del si woon keroog Dakar rek ñu di ko. moom maa ngi taxaw fële. waaw. kii bu mujj bi nag léegi nguur gu mujj gi nan comme bu mujj bi fi lañ tollool mooy Macky Sall. Macky Sall. waaw ci nga toll ci toll nii. xam nga Macky la ah. waaw kooku it ma waada si. Ah. xam nga àddina loo gis nan koy rafetal di ko rafetal. te ñetti jigéen ak ñeent ku ne pegg yekk ngay aaye kii nga lekk bu subaa nga aaye kee bu subaa nga aaye kee xam nga ci dàq ci dàq añ waaye nag lépp da ngay wacc ca biir noon noonu lañu demante ñoom ñëpp noon lañu demante ku aaye te neex le ñëpp xam na ko ci aaye te naqari ñëpp xam na ko waaye lépp yàllaa nañ ci roof yàlla noonu la deme waaw ku moom àddina ñu ni yaay jiite àddina soo sañoon mooy dàq lépp waaye naqar bu ci ñëwee loola yàlla ba ñuy dox nag ba léegi a Macky Sall moom réew mi jubbanti na ba tàyyi waaye mbir mi ca saa borom la du ci jikkoom di ci yéeneem ba sañoon mooy gën ñëpp ñu jiitu woon te gën waaye nag yàlla doxalul noonu jamonoom mm-hmm. ni mu joxale jamono ñii day jooy ñii di jooy ree waaw léegi Macky Sall naqaralu réew mi bu sañoon day neex jamano ji naa nge jigéen di taalu cin di togg bu sañoon mooy dàq bi ñépp waaye yàlla moo yor jamanoom kii day neex de bu subaakee naqari de noonu lay demee léegi kii taxal bi naa yegg mbete maa ngi ñëw rek waaw mbete ma dagg ko woon maanaam kay li mu hmm. mooy kajoor Euh, sëñ Abdou Lahad kër gi lan moo ko wundu waaw loolu it yi am nga xam nga moo taxoon ma bëggoon jiitu sëñ waaye comme que dugal nga ci ñii ni nga ma yeggale kii moom mu lafa ni kuur ak nawet waaw nga waxaale ndaw ñi rek waa kaa war rek ah Macky Sall bu sañoon moo fi dàqu gay gën ci sama léppa ndax sama gàmmo la sàll la sant saw laa sant sama moom ci baay sant naa ki moo sant sàdd ki sant sawa ko moom tey maamam it boole ci waaw di ku baax ku yàlla baaxal ku amu jàng baayam ñëw nekk ñëw ci réew mi nekk Fatick gay njaay nekk fa ba yàlla tudd lii mu tudd mu am suñuy nopp yaayi kooku noppi gune yi ndaw si ju kumba juuf mu am ca mii mu am ca Macky Sall mu sant Sall mu sant Sall waaw ndeyam juuf la sant waaw ndeyam juuf la sant ah ah loo ci mu ni laa laani juuf la sant ah, baayam a sant sal ma ci sàll loolu laa la wax uh-huh. waaw waaw àddina bu dee bu ñu jiiñ kenn ñu moo naqareel jamono moo mu ñu jamono jamono saa borooma ko moom moo koy neexal moo koy naqareel day am tollu boo xam ni day neex am na tollu tolluwaay yoo xam ne day naqari ku xam naga ku mën a xam kuy xoole genn wet du ko xam man nag lépp dama fee fekk waaw mi ma la ci mujjan tale mm-hmm. ah Macky ko sa maam ngi fii Touba Pekes Matar Sow ñu gën koo jiñ Serigne Ndiaga Sow ñu tuddee ma Matar lay yilimaan tëggati ñingu taxaw ci téeméeri at ak fukk ak ñeent. macha allah ay weer. yaa ma bëgg na ma yónnee boto akub dund mooma moom si googu wet na ma yónnee boto bu ma jógee ñu yóbbu ma ma dikk wër àddina bi booley bokk te duma féewade bëgg ñëpp ànd. message bi jàll na. waaw ñëpp ànd ñëpp ànd ci lu baax waaw loo xam ne dëndoon nañu koy bàyyi du leeral ñu wax. léegi xam naa. waaw euh, ñi ngi bëgg a jeexal. waaw ana yan kàddu ngay te maanaam ngay dénke. waaw ñu ah. ne leen pékes gi ak ak li ngay tënkee réew mi. waaw jamono ji nga xam ne ay yii fi xew ak ak njariñ yoo xam ne ko mën a baaxe waa adduna bi ñu mën koo jariñoo comme yéen ay mag ngeen ñàkkul ay secret yu ngeen denc. waaw waaw yooyu maanaa ma wax ci maanaa kolondaar bi. waaw bii fi ne. coronavirus waaw. lu yàlla tudd la. puisque amoon na fi. bi sëñ Tuubaa nelawee ba ca déwén sa muy vingt-huit vingt-sept la sëñ Tuubaa nelaw vingt-huit mu ñëw waaye booba docteur xewagul tubaab lateegu fi dañuy fab sam néeg yóbbu de sàkket ko dafa landaa ñu lay ñuy togg di andi di la naa di toggal foofee jëm néeg waaye mel nii di tax mu siiwe nii nag waxukaay amul doon léegi nag waxukaay bi daa rëy ndax boo nee kenn deena tey ñu ni fukk deena ñu yokk di gën a tiital réew mi loolu moom maa koy ñaan ni ko nañu ko wàññi wax ji bi dee jërul wax yàllaa moom jamono moom kiy rey keneen du rey ku dul yàlla waaye nañuy yem nag di yokk gi day tiital nit ñi day tiital nit ñi waaw muñ góorgóorlu def lu baax del li mu def def na ndax bimbili na sëñ Muntaxa ni ñu yaakaar rek dina gaal nun sàkk na ndimbal jox ñëpp bëgg lu baax te du dugg ci lu bon yëpp ñëpp baax ne nañ ko dimbalee réew mi moom it moom ab kii Macky Sall mi ngi def lu baax mu bëgg nag bu mu déglu benn bu dul wax bu baax mu def nag nekk ci lu baax bu réew mi naqaree naka bu woon du sagoom dafa taal cindi def ci ndox mu baax nga ñulug def la ngay def def ci xorom bu weexee du sagoom bëgguloon mu weex bu texamee na la woon ni it néexu ko woon yàllaa ko bind noonu la addina doxe noonu la addina doxe noonu la addina doxe Macky Sall gare si ma fi Pekes Touba Pekes Matar Sow taalibeem Njóobeen waa kër sëñ ma Samba Jóob borom Dóorog Sam sëñ Galas laa yaakaar waaw yàlla nag buur bu baax la yéen ñii ñëw nag sant naa leen gërëm naa bàyyi waaw ñu def noonu waaw léegi kii euh, Baye Ndiaga hmm. euh, bi xëy na moo xaw a tàng fi noonu lii waaye dañ lay jox ne la insha allah balaa yàgg dinañ ko waajaat ci waajaan bu am solo boo xam ne danañ fi ñëw gën a yaatal journée boo xam dañuy xëy ñëw ñu gën a nga tàggu mbokk yi nga xam ne hmm. ñoom ñoo doon ñoo lay seetaan rek ndax dañoo war a wàññeekuwaat dem ba Touba bu soob yàlla te dañoo bañ a xaw guddee moo tax insha allah xanaa tey tey léegi nii bu soob yàlla rek yéen de xam nga ne man bu ma gis ka fi na doon man bu guddi wuloon ma dem waaw sëñ mu talaa laa bëggoon a gare ji booba ba tey nuyu ko ba mu toogee jalba tey nuyoo guma te moom rek laa ñaanalagul ndeysaan moom rek laa ñaanal ba guddi. léegi daal waaw léegi daal yow bu ko defee rek ñu ñaanal. Euh, ñu yeeweeku. waaw war a dagg dem ba tuubaa fi mu nii. waaw ay li liggéey dañuy xaar. waaw faaw ñu dem jumaa Touba Pekes bi ngay wax. waaw faaw ma dem filmé jumaa ja. waaw ndax boo ko waxee dañ ko war a wane. dëgg la fa laa war a dem nii moo tax. dëgg la xam naa nga ñu tàllal loxo yi. waaw nga joxe ay ñaan yoo xam ne nii. waaw euh, ñi ci réew mi. waaw ak ñi ci bitim réew ñi nekk ci àdduna bi. waaw danañ ko mën a jariñoo Cheikh jëlal loolu bu ko euh, ay kàddu yoo xam wala ay ñaan yoo xam di nga ko mën a baaxee waaw wala ay ay ay ndénkaane yoo xam ne ni. waaw ay ay ay njariñ la yoo xam nit ñi danañ ko mën a jariñoo pour jërëjëf waaw ay muslaay waaw uh-huh. njóobeen mbaa taalibeem njóobeen waaw ñu ñëpp sañ tuubaa nee na uh-huh. loo xamul bu ko wax uh-huh. loo moomul ba fa yoon woo xam ni boo ko moomul bu ko jiite dem na ba ci wax joo xamul nanga ca gàtteñ lu nanga ca gàtteñ lu na nga gàttal say làmmiñ gàttal say wax te dudul noona lu baax moom ku naan na cee sar sàggal waaw bëgg bi nga xam ne ñëw na ci réew mi nañu wàññi wax ji tey faju ko fegu ki moom yëf yi moo ko fi indi fi jëlee mu dem ndax damano yi seen Tuuba bi mu nelawee ñëw na fi ñu tudd ko piste ba booba tubaab xewagul waaw ndax booba la gënoon a métti waaw booba la gënoon a métti waaw waaye amuloon du yóbbuy wax lii nag dañoo am loo xam ne day yóbbuy wax <laughs> boo waxee mu wër àddina waaye dañoo nekkoon ci faju ak a fegu ak a gàttu tànk ak a loolu daal moom ngay dénk ndaw ñi waaw maa koy dénk mag ak ndaw te fekke jamono bi nañu góorgóorlu dégg ndigal mm-hmm. te bañ a dégg ndugal kilifa mm-hmm. lu mu wax nan ko def li mag ci wax def leen nag takk leen i masque uh-huh. waaw déglu docteur bi di mu santaane waaw li muy defit maanaa raxasu nañu wut saabuy ordinair yi uh-huh. di ko raxasoo loolu lu am solo la moom. moo mën yëpp. ba lii xew loola xewu doon it. looloo tax man saab saaboo ngi sa saa néeg. waaw léegi usu billaahi mina seytaani rajiim. wala hawla wala quwwata illaa billaah. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulillaahi rabbil aalamiina. rahmaani yawmi diini. iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin ihdina sirata mustaqima sirata lazina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daaliin amin barke borom Tuuba barke borom Tuuba barke borom Tuuba ak topp ci moom ñëpp yéen ñii nga xam ne nag yéen a andi lii fas na ngeen jariñu jariñu ñëpp bëgg ñëpp jariñu mooy seen yoon wi mooy seen wax ji mooy seen jëf ji nga ñaanal moodu moodu yi ci bit waaw yàlla ci boppam dinaa yegg si yàlla ci boppam yana leen muccal guddi ak bëccëg te man mii nag du ma ñaan yàlla def ndax bàyyi laat noonu ma waa ji jër ñaan koo xam ne du mu ñaan yàlla def yàlla yàlla guddal seeni fan ñëpp yéen ñii toog nag da ngeen cee raw yàlla yàlla guddal ñëpp seeni fan waaw musal leen ci natt yi ñëw mhm. léegi mu naaw ndax ne ma naa leen dinañu tabaski dina naaw dinañu ubbi bunt yi yàlla mën naa def lépp leenu rag martuwe waaw yéen ñii dox lu baax nag yal na yàlla may ngeen yàggal dox ngeen yàggal dox lu baax te dem amul ak wér leen te yàlla muy musal nag dina leen musol yàlla muy musal dina leen musal waaw ba ngeen mucc di man parce que da ngeen góorgóorlu nii ngeen di dox mooy bi dox jara dox dox lu baax moo gën cib dox wax wax lu baax a gën jëf jëf lu baax a gën waaye du dul noona jërul jëf jërul wax jërul toppandoo du wax leneen dëgg la àddina yëpp <coughs> ku muñ moo la gën dangay dégg ñu wax la du dul noona boo fekkee ni gàjjanoo woo moom romb ko bu ko tudd du am solo ndax fa leen yàlla yóbbu yàlla diitalal nu ni leen tegtal ngeen nekk ci di dox lu baax di wax lu baax moo leen di aar moo ab di aar waaw Ndar damaa dem fa moom dégg muy jàng fii booba ma nga gànnaar laa dégg bandam yi ma waaxu ba dem fekk ko saar soor ndar booba mi nga pikin man nu yow moom waxtaan ak moom ma ni ko du ma andi. Mhm. dégg na rek bëgg la ñaŋ. ndeysaan ay sama nijaay yow ma ni ko bëgg rek gis la. ndeysaan waxtaan ak moom mu ne ma damaa bëgg kër gii mu dëkk ci soor nu daal di dikk ma ne fii dama koo jënd sa bëgg fee ñibbi maa ko ñaan mu ñibbi si soor. waaw léegi-léegi ñaanal ñun ñu. waaw moom baax ko ñaan de. waaw din ko dinaa leen ñaanal. alhamdulilah ndax lii nuy wax lépp mu mën a jóg. ci àddina li sooroor bi jëkkati ko Touba Mbacke ñëpp seen ko yàlla na yàlla yëkkati yéen ñi waaxu ba dikk ba fii fi man. ndax man lu ma ñaan yàlla def ko. alhamdulilah waaw. taxaw naa ci dëkk bi ma fi ñëw naa juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar ak juróom ak juróom ba juróom-ñaar du dox lu bon du wax lu bon sama yoon nekk ci lu bon lu baax moom lu ne naa nga ca. Mhm. yàlla muy musal yàlla leen gën a musal. yàlla mi yokk na leen yokk may leen ba mu doy bi ngeen bëgg te du jaamu yàlla yàlla leen ko yàlla yombalal waaw waaw waaw dana yàlla guddal seeni fan ngeen yàgga dox dox lu baax ma bëgg nag uh-huh. jotalool Macky Sall uh-huh. nee ko dama yónnee bato bu may doxe waaw jërëjëf bu may doxe jërëjëf léegi ñaanal waa bitim réew ñi ci biti am mu këyit non ñi am bitim réew. waaw nekk dama caa am tàggu na yoo xam ni. waaw tàggu nañu ma fii ñu dem. na nekk fii itali France. Amérique. France. <coughs> Argentine. dégg nga Maroc ak sëñ bu bees bii fi wetu bi bi yooyu yëpp dañu ma dama leen naalan bëgg ñëpp mucc. ak mucc de. te dinañu mucc. ba ñibbi si waat fii nañu góorgóorlu ku ci kayitam nànk ah. na fexe ba dikk ba fii jokkoog man ma jox ko loo xam ni boo demee fa ñuy joxe kayit dina la ko yëkkal jox sa ñu ban kon nag gars yi yéen ñi nga xam ne yéen am jafe kayit wala am jafe-jafe maa la ko wax de ku ñëw ñëw leen Baye Ndiaga la nga xam ne suñu ablaat mu ne ko loo ñaan moom lu ma ñaan Baye Ndiaga waaw ñaanalal gars yi bëgg benn ñu am benn waaw ñu mën a am ñaar waaw ñu bëgg kër am kër am kër ñu bëgg oto am oto am oto waaw waaw gars yi waaye am am yëpp nag na ngeen am sëñ Tuuba rek na ngeen am yàlla yonent bi jëm sëñ Tuuba rek bu baax yàlla yonent bi ma jiitu waaw te ñaan mucc ak mucc de na ngeen ñaan mucc ak mucc jërëjëf <coughs> barke borom Tuuba na ngeen góorgóorlu bu baax amiin <coughs> yéen moom dinaa leen defal mbir waaw defal ñu ko amiin su bi daay amiin